jaay naa ko ba mu jar ba ma jox la njëkk nga ne ko déedéet joxoo ma njëkk de dañuy jàpp ne wax na dëgg jaay na ko ba mu jar jox na la njëkk aw wadixataka wala sa ndénkaan la aw xiraadaka wala sa xiraadu ja yëpp rek fal xawlu wax ja xawlu koo waxam bu fekkee da nga koo dénkoon gannaaw ba nga di ko laaj la nga ko dénkoon mu ne la laaj nga ma ko ba jox la ko nga ne ko déedéet joxoo ma ko ki jàpp ni wax na dëgg laaj nga ko ndénkaan la ba jox na la ko wala xiraadu da nga ko joxoon capital bu cay commerce nga ne ko ana sunu àll di xiraadu ja mu ne la ah nu séddoo bu yàgg nga ne ko déedéet séddoo gun de dañuy jàpp ni wax na dëgg liggéey na bu ngeen séddoo ba nga dem mu dem waxam rek la ñuy jàpp wa man xaala ku wax ne dafa xatu jiñ naa ilaa fulaanin jëm ci diw dama amarta nii na nga ma digale woon fa ankara te weddi fulaanun diw fa xalat taabixi kon war na aji jiñ ja albayinatu seere wa illaa ndew amul seere damina mu gàddu ko su fekkee danga ko ne lii dama joxal ma ko diw dama ko faye bor mbaa daa ko ko jox addiya mbaa daa ko ko sarax yëmutal benn weesu benn weesu moom daa wax damaa dem fekkuma ko fu ma ñëw joxaat la ko boobu moom bu ñu nga yónni woon mooy am dëgg waaye tey nag moom da nga ko yebal ne ko demal fayal ma diw bor waa dama joxoon bu sëñ sàngam addiya mu dikk ne la fekk naa ko fa ba bu dee bor ba mu ne fay na ko ba bu dee addiya jox na ko sëriñ ba nga laaj nag ka nga doon fay bor mu ne la ah déedéet joxuma dara de mbaa sëriñ ba ne ah déedéet ak siwul de su boobaa moom mi nga yebaloon faaw mu taxawal ay seere yu seere ne joxoon naa bor bi kii ñu ko war a fay waaye joxoon naa addiya ji kii su fekkee taxawalu seere rek moom yoon jot ko ñu ne ko léegi fayal wa kazalika naka noonee xalaa waliyil aytaami war na kilifa girim ya albayinatu seere ne àndaxoo naka moom anfaqa dundali na alal ja xalihim ci ñoom girim bu dee ci yoon de su ko bàyyeeg boppam faaw ñu seet ku ñu wóolu féetale ku mbiri jirim ba mu ne nag bu fekkee ko yore woon mbiri jirim ya dafa juumanteeg jirim ya fekk na jirim ya nekkuñu woon fa moom bañu naa bis bu ne mu joxe leen dépasse te loolu neexut a bind ak yu demee noonu moom daal feneen la jirim ya nekkoon xëy na kon da leen daan joxeel weer wu ne nangam ba at mu ne nangam su jirim ya ne su alal di war a gut a jeex mbaa sax ñu ne joxe luñ ci dara kat su boobaa moom mi nga xam ne moo yoroon alal jirim ya war naa am ay seere yu leer yu ko seereel ne alal jirim yi doxale na ko nam ko war a doxale su fekkee amul seere yooyu rek faaw yoon topp ko mu daal di war a fay alal joojee aw dafa wala jiñ na alal ja ilayhim jëm ci ñoom su fekkee jirim yi dañoo dem ba kàllafe xam nga kon boo leen seetloo ñu mën a wéeg seen bopp yëkkati da ngaa war a yëkkati seen alal jox leen ko yow nag nga ne ñoom kat seetlu naa leen bañ mën a wéeg seen bopp jox naa leen alal ja ñu weddi ko ne déedéet joxuñu dara de su boobaa faaw nga sàkk ay seere yu la seereel ne ñii ñoo seere bàyyi jox alal ji jirim yii fekkee mënoo ko rek jàpp ne joxe joxe googu alal yi bëgg a fayloo faaw nga andi ay seere wa in kaanoo ndem nekk nañu nag fii xadaanatihi ci yaram suuf di xakkoon dëggalaleef ko fi nafaxat ci dund ba fii maa ca la nga xam ne yushbihu dana jaadu su fekkee jirim ya dañoo nekkoon fa moom mu yor leen bu wér kon ñu mën a wax ne fere bis bu nekk neexul te bind ka takk kon nag bu ne alal ja def naa ko ci ñoom rek seenub dund dañ gis ne la mu wax jaadu na ñu nangu la mu wax su jaaduwul nag ñu door koo topp ba xam lu ca xew wasulhu yéwénoonte jaa isan aji dagan la illaa ma ndare la nga xam ne jarra ñoddee na ilaa xaraamin jëm ci aji araam yéwénoonte mooy nga bañ ngeen xuloo nga ne ko waaw teenoo def nangam ba jox la nangam rek te wax jéem foofu loolu mooy yéwénoonte yéwénoonte mooy dagg xuloo bi rek loolu nag nee na buñ ko seetloo te nañ ko defante yoon aayiwu ko rek baax na waaye buñ ko seetloo dem aay ci yoon du baax mel ne dafa laa jiiñ ne amel nga ko fukki dinaar yoo xam ne su weer wi dee nga ko war a jox kon xam nga loolu bor la boo aseegut nga bëgg a yéenanteeg moom nag ci jox ko nangam ci xaalis fi saasay saasa te xam nga ne weer wi deexagut waaw loolu xam nga bu fekkoon nañ koo seet day mel ne wecc ko wuur sa xaalis te lee teew lee bañ a teew loolu bu ñu ko delloo woon ci wàllu njaay ak wàllu weccante noonu lay ne lu mel noonu nañ koy aaye kon daal su ngeen naree xëccoo coow nar a am bu ngeen may waxtaan ba juboo rek bu ngeen waxtaanee ba juboo rek baax na ci jeexal xuloo ba waaye nag mais anam goo xam ne bu ñu ko seetloo ci yoon du aay waye joosu dana dagan xalal iqraari ca saxal ga wal inkaari ak weddi ga nee na mën na laa jiiñ nga nangu ba noppi te du tee nga wëlbatiku yéwénanteeg moom mën na laa jiiñ nga weddi ba noppi wëlbatiku yéwénanteeg moom waaye day wax nag yéwénante googu kat dana jeexal xaccoo bi ci àdduna waaye li ci biir moom yàlla koy attiwaat bu ëllëgee ndax bu la nee amel nga ma ab junni nga bañ xuloo bi metti nga ne ko ah waaw téema laa jox juróomi téeméer yi ba téema laa jox téeméer bii te ñemale ko foofu rek su la wóoree ne ameloo ko dara mu wóor ko ne moom ameloo ko dara loolu nga koy jox araam na ci moom waru koo nangu dana dagal nii nag ci kanam àttekat bi da xëccoo bi jeex ndax ndegam nangu nga ndax bañ ndax bañ xuloo am seen diggante nga joxe sa àll loolu yoon nangu na ko moom ndax ngeen bañ a xuloo waaye nag ci baatin moom moom ma may nangu lu mu warta nangu moom ma ngay lekk lu araam bu wane ne yooyu noonu te mën naa jeexal mbir ma fii ci àdduna ci zahir waaye nag bu dee ci wàllu baatin moom meneen mbir la lu yàlla seetaat la bu ëllëgee yooyu noonu te ga du tax mu mën a daganal la araamoon wala amatu jébéer ba alxaaratu bay aji war te tasawaju mbir moom dana sëy xalaa am na xaa ci kaw ne naka moom xurratun gor la fa li sëy di xaa ñel na sangam ba axduha ak jàppam wa axdu xiimatil waladi ak jàpp xayme doom ja yowmal xukmi ci bisub àtte ba la xooñeel ko jamono yi taalif li booba mbirum jaam dafa bari te tasaaroo mu ne nag bu fekkoon ne ab jaam bu jigéen daa dem ndax ak góor ne ko man kat gor laa ba kooka takk ko naka kooko takk am ak moom doom sang ba ko moom nañ ñëw yem ca ni kii di sama jaama ñu topp ko mu wax dëgg dañ ko wax ne ko kon da ngay jël sa jaam doom ji nag moom gor la te bàyyam moo koy téye waaye na la fay xaymee doom ji dañuy seet doom ji lii ak payam ñu jox la ko nga yóbbaale moo ko yaay ji te nga bàyyi fi doom ji ndax dagam dagam jébéer bi rek moo nax góor gi ne ko man gor laa ba mu takk ko doom jëm ci am moom mi ko takkoon gor lay doon doo ko mën a yóbbu waaye nag la fay xaymee doom yi nga yóbbaale nag yaay ji boole ci wa man istaxaqa ku yey amatan ab jabéer xadd wala dat boobu jur na fa loxoo ko ñeel na ko xiimatuha xaymaam wa xiimatul waladi ak xaymee doom ja yow man xukk mi ci sub àtte ba yey mooy nga fekk mbir ci loxoy jaambur nga wax say lay ci yoon ba yoon la wax nga dëgg yaa moom mu ne tey nag boo fekkan ab jaam bu jigéen ci loxoy jaambur te jaambur ba am naa moom doom te moom njublam jotewu ko ci woon dañ ko koo jaayoon rek ci misaal mbaa dañ ko koo mayoon ak yu demee noonu waaye njublam jotewu ko ca waaye yow nag ñëw nga wax ne yaa ko moom te biñ ko toppee yoon ne wax nga dëgg yaa moom. doo yóbbu jaam bu jigéen ba dañ lay fay xaymay jaam bu jigéen ba ak xaymay doom ja nga xam ne tey njëkk nga yóbbu waaye doo yóbbu jëmm ñu waxe tey doo yóbbu jébbeer ba doo yóbbu. doom ja nga yóbbu xayma yi jébéer ba ak xayma doom ja waxii la waxees na ne yaqusuha dana jël jébéer ba wa qiimatal waladi ak xayma doom ja waxii la waxees na ne laxoo ñal na ko qiimatuha xaymaam ja fàqat dong ilaa an yaxtaara ndare bu dafa tànn attamana njëgg fa yaqusuhoo tem koy jàpp nel xaasi bi tukkee ci aji daan ja jël allasi ja nga xam ne baaxaxaa jaayoon na ko am na ñu wax ne sañ naa jël jaam bu jigéen ba ñu fayaale ko xaymay doom ja te benn wees woon moom daa waxoon ne du yóbbu jaam bu jigéen ba du yóbbu doom ja dañ koy fay rek xaymay yaar yépp jàppal nag ne wax ju jëkk joojee moom lañu sukkandikoo bi mu wax nii muy jël jaam bu jigéen ba ñu fayaale ko xayme doom ja sukkandikoo wuñu ko bee ca topp itam mooy wax ne moom kat dañ koy jox rek xaymay jaam bu jigéen bi waaye doom ja sax moom kenn du ko ci joxaale xayma te wax boobu dolli ca ne su fekkee ne it dañ koo daanoon rek nangu jébbeel bi ci moom ñëw jaay ko kii nga xam ne moom la nekk ci loxoom kon mën naa tànn moom mi moom tey ñu fay ko njëg nga xam ne moom la ko waa ji jaaye woon wala ñu seet xayma ja lu ko ci gënal rek yetti wax mi ngi foofu waaye jàppal wax bu njëkk ba moom lañu sukkandikoo walaw kaanat doonte nekkoon na bi yeddi raasibin ci loxoy aji daan jël fa xale kon war na ko alxaddu gitan wala du xoote doomam ja raqixun ab jaam la maxaaxa ànd ak yaayam li rabbihaa ñeel boroomam bu fekkoon ne nit dafa ëpp doole nit nangu ab jébéeram joteeg moom ba am ca doom bu ko yoon jàppee moom mi nangu jébéerub jaambur ba joteeg moom ba am ca doom dañ koy gétan gisunu njaaloo ba noppi doom jëm ci am ñu boole ko yaay ja delloo boroom xam ne kon dana gis doomam ñu koy defub jaam du ca mën dara wa mustaxiqul ardi ajeeyoo suuf baxda an xamarat ci gannaaw ba mu dundee moom suuf sa yedd fa am dana jiñ xiimatal ximaarati xaymay dundal ga xaayman mbir mu ngi aji taxaw mu nit ne suuf si maa ko moom ñu topp ko ci yoon mu wax dëgg loolu mooy yeey fekk am na ku ca nekkoon koo xam ne njublam jotuliwu ko ca dañ ko ko jaayoon mbaa may mbaa doon luy demee noonu waaye moom daal moom mu ca nekkoon jot na caa def peen ni ki tabax na ca mbaa jëmbat na ca garab am ku ñëw wax nag ba ne moo ko moom yoon topp ko ne ko wax nga dëgg li ñu def nag ñoom ñaar peen bi am na koo ci def mi tabax yi mbaa garab yi mbaa yaar yëpp sax te moom jublam jotuliwu ko ci woon kii itam topp na ko ci yoon ba yoon ne ko yaa ko moom mu ne kon dañuy wax ki moom suuf si ne ko fayal borom peen bi peenam ki nga fekkoon mu nekk ci te njublam bàyyiwu ko ci fay ko peenam bu fi defee tabax fay ko xayma yi tabax yi bu fi defee garab noonu su ko defee nga boole ñaar yëpp daal di moom sa suuf ak peen bi ci nekkoon ndax da nga fay nga peen bi te yaa moom suuf si moom kon baax na. fa in abandeem bañ na dafa kon jëm ilee jëm ci moom al mushtari aji jënd ji xiimatal buqaati xaymay pàkk ba baraaxan bir mu mi ak ndéeneef suñ nee waa ji moom suuf si moom gu yees fayal peen bi moom yaar yëpp mu bañ dañ wax ka ci nekkoon ne ko yow fayal waa ji xaymay pàkk rek te yow moom yaar yëpp ndax ndegam peen bi yaa ko ci def kon waa ji ndegam nangu wulaa remboursé sa peen yow fay ko xaymay pàkk bi rek mu daal di moom yaar yëpp sugantoo moom itam nag mooy fay abandeem bañ na kaanaa kon ñu nekk ñoom ñaar sharikay ni di aji bokkaale bi xiimatimaa ci xaymay la nga xam ne li kulli waahidin ñel na kenn ku ne su kenn ku ne gàntoo lañ la wax ki moom suuf si nanga wut a fay peen ba mu ci fekk dafa def peen ba nanga wut a nanga wut a fay xaymay suuf sa kon ñu leen yéen a ko bokk rek ci kenn ku ne nag wëlooru la nga am rek moom nga moom bu dee béréb boo xam ne seeraayu suuf sa ak seeraayu lañ def ca kaw ñoo yemoo képp kon ñoom ñaar ñoo yemoo ca xayma ja bu dee béréb boo xam ne suuf a gën a seer mel ne Touba suuf saa gën a seer la ca kaw mbaa Ndakaaru su boobaa kon borom suuf sa mooy ëppale ca xayma ja maanaam bu fekkee dañ koy ab jàmbur ci misaal dañuy seet la cay bàyyi ko ñu koy seddoo ci kaw kenn ku ne wëlooru la nga moom. niki bu dee fu mel ne Touba ak Dakar suuf sa mooy gën a seer ci xayma lañu tabax ci kaw kon su boobaa kon ka moom suuf sa moo war a ëppale ci loole ñuy amee ci foofa bu dee kaw ga nag nga xam ne dañ faa tabax tabax bu mooy ëpp valeur de jëmmi suuf sa moom du ko tax am solo fu mel ne foofu it ka moom la ci kaw muy tabax ya moo war a ëppale ci la ñuy jëlee foofa wal xaasibu aji daan jël yumaru def na ko digal bi xalxi binaa ihi ci buddi tabaxam ba wa zarxihi ak mbayam ma wa shajarihi ak garabam ya bu fekkoon ne nag ka tabax ca suuf sa mbaa mu jëmbat see garab da ko nangu woon ci jàmbur ci doole rek kon bu ko yoon di àtte da koy wax ne ko tëjal tabax yi buddi garab yi maasaliwaat suuf si ba mel na meloon ke wax ne ko rek léegi delloo suuf si borom na meloon rek benn yoon wa insha ndem soob na ko antaahu kon jox ko rabbuha boromam qiimata dalika nuqdi xaymay loolee ñu toj war shajari ak garab ya mulxan ngir muy lu ñu sànni mooy lu ñu las baax da qiimati ajri man ci gannaaw xaymay payuk ka nga xam ne yàqalaaw dana buddi dalika loolee ki nga xam ne moom moo nekk suuf si ci kaw doole rek ma da ko nangoo woon ci jàmbur dal cee tabax mbaamu def cee garab yoon àtte ku ne ko da ngaa war a buddi garab yi te tabax yi delloo suuf si na meloon kooku nee na bu ko neexee mu bàyyi ca tabax ya bàyyi ca garab ya ñu xayma nag ku tojoon tabax ya ba mu daanu buddi garab yi ba mu nekk la siit nu xayma jay toll rek borom suuf si jox ko lu toll noonu moom mi nga xam ne moo fa defoon tabax yi garab yi te xam nga moom daa war a buddi rek garab yi sànni war a tojee tabax yi mu daanu degam loolu nag kon bu ko neexee mu tàyyi ci sonnante bàyyi fa tabax yaa garab ya borom suuf si moom moom ko te mu fay ko nag xaymay tojit rek ak xaymay ak xaymay las it wala lu ñu buddi ba las ko waaye du ko fay nag xaymay tabax bu sotti mbaa garab yu sotti te kat buñ seetloo ba ne xayma ci nangam la danañ ci génne ku ko doon dindiloo ab jaambur ñaata nga koy fay nit ki ñu ne ah moom kat bu bëggoon dindi tabax yi ba delloo paak bi na war a mel faaw ñu wooy lu mel ne ab maçon faaw mooy toj tabax yi teqali seng yeeg nangam ak nangam kon danañ seet ñu doon woo ab jaambur muy def loolee ñaata lañ koy fay ñu génne ko ci nag ca xayma ja door a jox waa ji nag mooy ki amoon doole rek nangu yëfi jaambur door koo fay nag la des ca xayma ja mel nañu ne waaw li fi nekk ci ay tabax ak ay garab ku tojoon tabax yi buddi garab yi las lu ñu defee ne moo di xaymaam waay ñu ne ah kon day des na ci war a am téeméeri junni ñu ne waaw bu fekkoon ne faaw dañuy wooyi nag koo xam ne moo koy toj ba noppi itam tagg garab yi toppale ko kooku li ñu defee ne moom lañ koy fay ñu ne ah kooku day faaw ñu fay ko ñaar fukki junni dañuy jàpp ne kon waaye ji nga xam ne moo ñëwoon ci suuf si ci doole def fay tabax ak i garab dañ koy jox rek juróom-ñett fukki junni ndax da nga xayma yi lépp lépp bu tojoon ba daanu téeméeri junni la te ko it faaw dañ ciy fay ka koy tojaka toppale ñaar fukki junni kon ñaar fukki génnee ci. téeméeri junni juróom-ñett fukk moo cee des loolu la ñuy jox kon waa ju dëng jooñee wala chey di dara xale yi di ko war fii maa ci la nga xam ne laa xiimata dit xayma lëxoo di ko ñeel bax dal xal yi ci gannaaw buddiga wala xadd mi ak maabuga te kat nee na sax loo xam ne moom la muy baax baax buñ ko tojoon ba mu def tojit du amati xayma kenn du ko xayma waale loolu nag mooy misaalum peinture peinture bu nekk tabax ba xam nga peinture moom mën naa seer waaye buñ tojoon tabax ba peinture bi du amati benn valeur loolu nag kon buñ dee seet xayma ja bëgg ko koo jox duñ ko seetaale waaye ruddu dana delloo alxaasibu aji daan jël alxallata njariñ la nee na nag ku ëpp doole nit nangu yëfam bis biñ la jàppee daal loo jariñoo woon lum néew néew dañ lay wax nga delloo ko boroom ba tey ab sàcc mbaa ko siif yëfi jàmbur ñoo yemoo ci go ci lu mel noonu képp koo xam ne rek ak njubla moo ko jotale ca loola bis bu ko yoon dee àtte da koy wax ne ko lépp loo jëriñoon rek delloo ko borom wala yoru duhaa du delloo nag njariñ la xayrul xaasi bi ku dul aji daan jël maanaam koo xam nag moom la ko jotale woon ca loola du njublam gannaaw ba lañ ko topp ci yoon rek mu war a génn ci loxoom waaye la ko jotale woon moom day lu mel ne jënd mbaa may mbaa doon mbaa yu demee noonu kooku ak njublam jotale woo ca lam jot a jëriñoo moom moo ko moom kenn du ko topp naa ko da nga koy fay déedéet ku yoon jotee bu joxe jëmm ji rek ba mu jot a jëriñoo moo ko moom wal wala du doom ja fil xayawaani ci ndundat wa wa fil amati ak ci jébbéer wa ida kaana dem nekk na al wala du doom ja min xëy yu sëyi di bàyyi ko ci kudd sang ba yaqusuhu dana ko jël al mustaxiqu aj yeey ja lil ummahaati ñeel yaay ya min yeddi mubtaahin tukkee ci loxol aji jënd aw xëyrihi mbaa ku dul moom nee na buñ fekkan ak jur ni ki am xar mbaa bëy mbaa nag mbaa gëléem mbaa fas mbaa leneen ñu fekk ko ci loxoy jaambur mu yore doom am ku wax ne man maa ko moom ñu topp ko mu wax dëgg fekk ka ko yoroon nag moom ak njub la jotoyu ko ca da ko jëndoon xëy na mbaa ñu may ko ko mbaa yi demee noonu waaye moom daal du njub la waaye am na ku ñu wax ni moo ko moom nag te buñ ko toppee ci yoon wax na dëgg bu doon jébbeel ba tey noonu la jamono yi jaam bu jigéen amee jaam bu jigéen kenn yore ko ba am ca doom am ku dikk wax ni maa ko moom ñu topp ko mu wax dëgg lu mel noonu nee na su fekkee ne jur ga la ni ki xarma mbaa bëy mbaa nag mbaa gëleem yi demee noonu nga wax ni moo ko moom day yóbbu ndey ja yóbbaal doom ja moom ma ko yoroon nag jëndi woon ko ci ab jàmbur da dellu ci kookee kooku fay ko njëgam waaye kii moom ndegam moo moom rek day jël yëfam yóbbu moom nag ndegam dafa jëndoon moom mi ko yoroon na dem ci ka ko jaayoon kooku delloo ko njëgam bu doon jébbiir ba nag léegi moom mi ko yor mu am ci doom nag te gis nga njublam jotaliwu ko ci ah kon kat doom ja bu fekkee ci moom la bàyyi ko day fay xaymee doom ji waaye kenn nangoo doom ji ci moom ndax doom ji gor lay doon di doomam waaye li wax ni nag mooy bu fekkee doom ja daa bàyyi ko ci kudul sang ba mooy ka ko yore yore jaam bu jigéen ba jurul doom ja ki da ko mayoon jëkkër jaam bu jigéen bi am ca doom ja mbaa da koo far njaaloo bu doon loolu moom ki wax ni moo ko moom day jël jaam bu jigéen ba jëlaale ba tey doom joojee waaye nag bu fekkoon doom ja kam nekk ci loxoom moo ko juru nag kon doom ji gor lay doon di doomam kenn du ko nangoo ci loxoom day fay rek xayma ja ca ne mu ko weesu woon ci gannaaw wa man xasaba ku daan amatan jébéer tuma wati ahaa topp mu laal ko fa wala duxoo doomam ja raqixun ab jaam la waxaale yi te war na ko alxaadu gétam loolu mel na ne baamu rek la daa wax ne ku ëppan doole nit nangu jaam bu jigéenam joteeg moom kon jotoo nga njaaloo la war na koo gétan te bu ci amee doom it dañu boole doom jaag yaay ja jox borom rek mu gis doomam ñu koy defub jaam tu ca man dara wa islaahu sufli defar suuf ga xalaa saaxibi sufli war na borom suuf ga nee na bu dee tabax yi dafa def étage ci kaw am tabax bu féete suuf am bu féete kaw kon ki nga xam ne moo féete suuf moo war a defar bu baax a baax ba mu dëgër ndax bañ a yàqal ka ca kaw ndax ka ca kaw moom ki ci suuf rek ci la sukkandiku kon nag moom mi féete suuf moo war a defar bu baax ba ka ca kaw moom bañ a daanule wal xashe bu war na ko itam bant ya li saq fi ngir tégg xale yi ci moom ba tey moom tax bi nga xam ne moo féete suuf moo war a xadd xadd bi ci kaw ndax ndegam moom bu amul xadd digga dem asamaan bu nekkum nekk kon ci moom suuf gi moo war a xadd xadd bi ci kaw bu noppi dëgëral ko ngir ka moom kaw ga man càtteeg bu dëgër moom itam ba du daanule wa taaliqul xurafi tóoj tabax yi ndaw ya xale yi war na ko isa waxaa ndem doye dina a suuflu suuf ga waxu dima wala mu nar a màbbu waxu dima waaw gi daal maanaam aw xudima wala daa wax ne bu fekkee ne tabax bi féete suuf dafa xaw a ñëw doole ba biñ seetaanee boroom dana yàqule yàqlaale ka ca kaw dañ ko wax ne ko diir boobu nga xam ne yaa ngi war a defar yow mi féete suuf la koy tóoj mooy la koy dëgëral bañ mën koo defaraat ba ka ca kaw moom itam du yàqule ba tey loolu moom moom la war moom mi féete suuf moom mi féete suuf degam tabaxam bi dafa xaw a doyal yi dem bay bëgg a màbbu la koy dëgëral mooy la koy tóoj téye ko bu baax a baax bu borom kaw ga mën a jariñu bu baax ci diir boobu mu defaraat tabaxam boobu loolu moom la war wayu jubaru def na ko forcé xalaa an yusliha ci mu defar aw yabiixa wala mu jaay mi mën ci koo xam ne yuslihu dana defar nee na boo féetee suuf nag am ku la féete kaw ñu gis na yow sa bopp bi kat mi ngi bëgg a daanu te boo yàqule da nga yàqalaat ko ci kaw dañ lay wax ne la benn nga defar ko mbaa nga jaay ku ko defar waaw danga koy defar rek mbaa nga jaay ku ko defar waaye nag doo bàyyi sa yëf mu yàqu nga yàqalaale ka ca kaw ba tey bu ko jaayee keneen te kooku nangu wuti defar ñu forcé ci kooku ne ko yow itam defaral mbaa nga jaay keneen ñu koy topp rek ba àgg ci koo xam ne dana nangoo defar wala darara bu lor ku la lorut wala diraara bu lor ku la lor daa am ñu wax ne ñaari baat ñi la darara wala diraara ñoo bokk ay maxna am ñu koy teqalee ni ma wax léegi hadis la bàyyi ko ci yonante bi sallallahu alayhi wa sallam da ko andi ngir lim lay bëgg wax ci mbirum dëkkandoo moo tax mu tàmbalee ko hadis boobu fala yafalu du def maa loo xam ne yaduru day lor bi jaarihi ci dëkkandoom min fatxi kawwatin ci ubbi ab faneetar xaribatin bi di aji jege yàq sifu ab dana wuññu jaaraxaw dëkkandoom ca min xaa ca moom nee na wër laa ubbi fenêtre boo xam ne boo ci taxawee di gis lu wërta gis ci kër sa dëkkandoo mbaa lu bokk ci moom aw fatxi baabin wala ubbi ab bunt xubaalata baabi yi jëful buntam sa dëkkandoo doo ubbi bunt boo xam ne boo ko ubbee day def màkk jàkkaarloo buntam bu ko defee ngay gis ci mbiram ak néegam loo wërta gis loolu sañesu ko aw xafrima wala gas loo xam ne yaduru dana lor bi jaarihi ci dëkkandoom ja fi xafrihi ci gasam ba wa in kaan ak doonte nekkoon na fi milkihi ci moomee la sa kër li nga koy moom moom bul fa gas pax moo xam ne day yàqal sa dëkkandoo ne ne bu fekkee mbir bi ngeen séq moom moo ko moom nga bëgg gas ab teen ci wetu mbir bi te mën naa boo fa gasee mbiram boobu daanu mbaa nga gas mbaa nga bëgg faa gas lu mel ne am pax di ca sotti mbalita yooyu xëy na mu yàqu mbiram boobu kon bul gas menn pax moo xam ne mën naa lool sa dëkkandoo doonte sax fa ngay gas yaa ko moom wa yuqu daa def na àtte bil xaayiti ca sàkket wa li mën ñeel ka nga xam ne ilahi jëm na ci moom alximtu xer ya wal xuquudu ak takkun ya ñaari dëkkandoo biñ seq ya aw sàkket ñu koy xëccoo ku ne ne maa ko moom dañuy seet ci aada ku ma saa moomu sàkket nuñ koy xàmmee bu fekkee ku ma saa moomu sàkket xer yaag takkul ya di féete ci yow kon ka xer yaag takkul ya féete ci moom ñu jàpp ne kookaa moom sàkket wax dañu seet daal ci aada nañ daan xàmmee ka moom sàkket wa mbaa ka moom miir ba ñu sukkandikoo ca noonu rek ba moomale miir ba mbaa sàkket wa kenn ci ñaari dëkkandoo ñi wala yum naxu deful aaye fadul may desit ndox li yum naxa ngir bu dee fi teree bii ci moom alkala u pardu ba parlu mooy foo xam dañ fay sàmm si fekkee ne béréb bee nit ñi sañ nañ faa sàmm si yow nag nga am ci wet ga ndox moo xam ne yaa ko moom nga jàpp nag ne soo xasee aaya ndox mi nit ñi daañu tàyyee sàmm si foofa ndax ndegam boo ko jotee faaw dañu fay weesu sa teen bi dem dem wëggee ji feneen du leen jaral kon ñëw di sàmmee si foofu xam ne kon yaa ngi aaya sa ndox bi waaye bëgg dangaa bëgg a aayewaale rek foofee ñuy sàmme loolu ëpp naa def loolu ëpp naa def wa ahlu abalil machiyati ñooñ teeni jurga a xaq ñoo gën a yeyoo bi xaa ci jurga xataa yes ko ba te ñu màndalee su mën naa topp nit ña sawaan wa yemoo lañu fii xaa ca teen ya ñi nga xam ne ñoo moom teen ya bi amee jur gu ñu wëgg kon am nañ sañ-sañu wëgg ba àggal jël lañu soxla suñu xasee jàll ñoom ñi ko moom nag nit ñoo ci yemoo ku ñëw rek daal di mën a wëgg ba man kaana koo xam ne nekk na fi ardihi ca suufam sa xay nun bëtum ndox aw bi utum wala ab teen fa loxoo ñeel na ko man xuwaa ak tereem nee na bu fekkee nag dangaa amee ak seyaam wala ab teen ci sa suufus bopp bu la neexee aaye ko ne nanguwuma ko ci root si illa an tan xadima ndare bu dafa màbb bi ru jaarihi teenub dëkkandoom ja wala xoo te ñeel ko zarxun mbay yaxaafu um dana ragal xaalihi ci moom fala yam naxuwoo kon du ko aaye fadlaxoo desit ndoxam ma nee na su fekkee sa dëkkandoo bi nga dendal daa amee mbay moo ñu war a suuxat te ab teenam jekki-jekki sakk te yow sa teen bi ëpp na la kon su boobaa faa war nga koo may ndox la nga ëppalee xam ne ittiwoo ko faaw day war nga jox ko ko moom mu suuxate ko mbayam ndax balaa mbayam a yàqu waxtu yi fa wuuteef na xal-xale yi ndax war na ko fii daaliki ci loolee sama nun njëg am laa wala déet dañoo wuti nag ci sa dëkkandoo bi nga xam ne teenam daa màbbu mbayam na la yàqu yow nag sab teen baax na te sam ndox ëpp na la ñu wax ne faaw nga jox ko sam ndox ndax loolu da caa war a fay laa war a fay njëgg wala waru laa fay foofu am na wuute waaye mbax yi dana yell an laa yem naa mu bañ a tere arajul waa ji jaaraxoo dëkkandoom ay yaxrisa mu samp xachabaxoo bantam ba fii jidaari yi ci ab miiram taamu nañu sa dëkkandoo bu bëggee samp lu mel ne bant ci sa miir nga bàyyi ko mu samp ca ne mbuub faa takk ak liiñ wala yu mel ne yooyu ba tëggaantu lépp loo xam ne rek sa dëkkandoo bëgg na ko ci loo moom daal buñ sañoon doo ko gàntu ndegam du la wàññi dara wala yuqudaa déefu ko àtte nag xale yi ci moom maanaam nag boo bañee kenn la forcé ne la faaw nga def li la wax déedéet bëggee samp ab bant niki ak liiñ ci sa mbir boo bañee yoon du la forcé ne la faaw nga nangu dañoo bëgg nga def lu baax rek nangul ko ko waaye yoon du la forcé ci faaw nga nangu wamaa loo xam ne afsadat yàq na ko almachiyatu jur ga mina zarhi ci bay wala xawaa it yi ak ay tool bi leeli ci guddi ga fa daalika loolee xala arbaabil machiyati war na waroom jur ga daa wax ne ruur moo xam ne ruurum guddi la moom borom jur ga ñoo war a fay ndax guddi borom tool yi mënuñoo sàmm seen tool guddi du waxtu sàmm kon nag ruur moo xam ne ruurum guddi la moom borom jur ga ñoo war a fay wala cheyt yi dara nag alihim di leen war fi fasaadi nahaar yi ci yàqu bëccëg ga bu dee ruurum bëccëg nag moom moo aajowoo teqale su fekkee ne fañ doon sàmmi sori woon tool yi